y compris ñu bokk ci Pastef donc ab Ablaye Sow di wax na il y a des membres de l'opposition qui vont rejoindre la bloc présidentiel dëgg la. dégguma bi ko Ablaye fekk euh, au fait déglu ma Ablaye démb nee nañ may ñëw na. non waxee ko fii démb sax. ah euh, grand jury la ko waxee. waaw waaw. dëgg la. dina bëri opposition bi actuellement ay responsable opposition bi yoo xam ne dinañ fekk Amadou. des responsables d'envergure. donc donc Amadou waxuma ñu amul base de waxuma ñu amul. électoral d'envergure waxuma 0,00 di n ko gis ci Dakar. Oh, pour cent bi di nga ko gis ci Dakar gis ko feneen donc. ah xaar xaar xaar Ndakaaru fii. waaw un opposant d'envergure. qui enfin, va rejoindre. des Amadou responsables des responsables de l'opposition d'envergure qui vont rejoindre le candidat de la majorité présidentielle. oui. ah bon. Mm. ah j'attends de mm. euh, mais li ci am solo. moo di ne président dafa dégg ne Amadou peut rassembler au-delà de Benno au-delà de la paire am na ñu bari ñoo xam ne dañ doon wax ne bu bu fekkee Amadou ngeen tànn dinañ ko jàppale lii président dégg na ko lii nit ñi wax nañu ko parce que Amadou il a cette particularité et lii du au fait du lu may euh, révéler président wax na ko il il a dit Amadou peut parler à tout le monde Macky président il a dit Amadou peut parler à tout le monde. il est transversal. oui Amadou peut parler à tout le monde.